Euh, lii nag sëñ Sam andi na si ay bunt yu am solo yoo xam ne yaakaar naa ñàkkul ni am na ñu ko si xamoon waaye jàpp naa ni euh, am na ñoo xam amaat nañ si ay bind yu bees surtout li mu wax si euh, Cheikhaan muy Abu Omar Addaani ak Abu Daoud xamoo hadis bu ne Cheikhaan ku ne xam ne imaam muslim ak Abu Hurayra la wax waaye ilmu rasmu ak dabt bind ak maas heure bu ne Cheikhaan rek jàppal ni. Abu Omar Addaani la ñuy wax wala Abu Daoud parce que ñoom dañuy dellu si ñoom ci xam-xam mu amaat lu am am solo lu si mat a jànge mooy koo xam ne yaa ko jàngal Abu Omar Addaani moom moo jàngal Abu Daoud waaye gis nga dongam bi mel na ni alwa ji mokk na ndax maam jigéen na sëriñ bi lool léeg-léeg masa la ñëw sëriñ bi jaar fee mu jaar fee maanaam te bu sëriñ bi indi aw lay mu indi aw lay loolu li ñu mën a mooy am na infitaax sëñ am na ubbiku waaye moom tam jàngal nañ ko xam-xam ba mu ñimee day jaar mu jaar yaakaar naa ñun neewaana si ñoo xam ne si daara Njaay danaan lii sëñ donga bi ni lii la loolu moom boo sàggantul dara mën na see bañ mujj waaye bariwul lu muy am waaye ñu man see jàngee ne kon ndege xam-xam bunt bu yaatu la te suñu borom moom moo koy mayee tey wa fawqa kulli zi ilmin alim loo xam-xam am na fa sa xam-xam yem am na keneen koo xam day ñëw euh, sof ci fi nga yemoon tàmbalee fa jëm kaw kon ñu xam ni euh, xam-xamu dabt muy maas ak bind xam-xam bu am am solo la surtout bayit yooyu nga xam si sam wax na ko muy ma mabaaxisu dabt lu mat a mokkal la parce que boo xasee xam fukk yooyu rek lépp luy dabt moom génnatut fukk yooyu maanaam xam xaraka gis nga nim si avancé moom la jël tëye jël sukkuun jël shadda jël idgham jël hamza jël jarratu naql jarratu naql xam naa ñu bari danañ ko xam mooy li ñuy wax njaraan xam naa ñu bari danañ xam ñun jaraan lañu xam gis nga olof jaraan xam nga olof day jël baat bi xaw ko xëcc tuuti mooy lu mel ni ay ashfaqtumo lii ngay gis nii xam nga gis nga loolu jarra lañ koy wax ba tey te gis nga ñoom ñu ne jarratu naqli nga jël ko jël silla yi xam dañ leen di jokkale ak ilhaq zaid ak laamu alif mu nekk fukk yoo xam ni mënoo jël ayn mu dabt di ko jàngat ba dolli si fukk ak benn fokk munoo fokk fokk lii lan lay cadré moom ayn mu dabt moom mënul génn fukk yi nga xam ne Sëñ Saam wax na ko muy ay bayit yoo xam ne Moustapha bu Xayrawi nekk benn shaayir moom moo ko way nekk bayit yoo mu bu mat a mokkal la parce que daan la la dimbali heure bu ne boo tiimatee téere bi nga xam lan mooy dabtu xam lan mooy euh, rasmu ah mu ñëw nag ci xaraka ma nee leen toujours ki jël dars bi bind bi mu joxe si la ñuy jaar am luñ ci sofaat leeral leen ñiy atte bu ñuy atte lan la ñuy atte xam xaraka dañuy wax ne maam nawaani xaraka nawaani la ñaari façon masque ñoo am dafa am bu ñuy tuddee asliya am bu ñuy tuddee fariya dafa am asliya am fariya xam nga aslu yéen yëpp xam ngeen ko mooy fata kasra damm fare maanaam bu dee fariin ya mooy yi siñ saam doon wax mooy al ixtilaas wala ishmaam wala imaala yooyu ñooy façon yi nga xam ne ñoom ñoo composé masque dafay am asliya mooy fata damm kasra am lu ñu tuddee fariin ya mooy yi mu doon wax léegi lu mel ne al ixtilaas comme am man laa yahaddi boobu ngeen di jàng si alxuraan ah? xam nga yaa ngi koy dégg ah? aman laa yahaddi kii kooku ixtilaas la ixtilaas lañ koy jàngee ci ci dabt boo demee ci lu mel ni si at tomb boobu kii moom mooy lismam ah. boo demee lu mel ni muusee kooku moom lañu tuddee imaada kon yii façon masque mooy yi nga xam ne ñaare boo déggee masque ñu la ñaari façon la rek mënul génn ñaar yi benn muy asliya walla muy fariya lan mooy far'iyya mooy yan yan yan ñett ñoo koy composé ixtilaas ishmaam la foo ko dégg rek ñoo yu ñu tudd al far'iyya bu dee asliya fata damu kasra kon yooyu boo ko xasee xam dangay daal di xam ne bu nee la maska ñaari façon la alxaraka nawaani kooku moom foo mën a demanti jëlatul nga si euh, dolli dara loo xam ne mën na la euh, jaaxal euh, mu des loo xam ne avant ñuy dugg ci liggéey bi itam xam nga ab concours boo siy bokk dafay am yoon dafay aaja ñu di ko jàngal nit ñi pour ñu di ko xam parce que ñiy corriger toujours xañ na ni nit ñi jàngee noonu lañ jànge dañoo beq bind ay kaamil waaye xamoo Sénégal toll na foo xam tey addina bi da ngay dégg ñu naan la kaamilu Maroc di dégg kaamilu Mauritanie di dégg kaamilu Égypte fu ne nga di dégg seen kaam mais ba léegi kaamilu Sénégal rasmiyan dafa mel ni amagul te yaakaar naa kenn mënu leen si alquran kenn gënu leen mokk mën a jàng alquran kenn gënu leen ko mën a bind jàpp naa ne sax niñ koy jàngee di ko mokkal li ko bindee amul ku koy bindee noonu si àdduna bi kon dafay jaadu lu mel nii moom moo ñu may école yi li muy bari bari ñu mën a dem ba am lu ñuy dëppoo ba jamono mën a yàgg ban dem ba mën a génn ak kaamil boo xam bii mooy kaamilu Sénégal du génn école yi foo ko présenté kenn du ko mën a sikkal loolu nag ñaare yu mel nii da man da dasee mën a dimbale nit ñi daara yi ànd ak wuuteeg daara yi ñu mën di daje di joxaleen day xam-xam bay am lu ñuy dëppoo ndax fi mu doon téere yi bari nañ waaye seeni wuute toujours day am fu muy doon lu mel ni ki mën naa laa jox misaal lu mel ni ki laa yastaxyi xam nga laa yastaxyi xam nga gis am na ñoo xam nii la ñuy def ah. nga gis ñoo xam ni nii la ñuy def te pourtant ku si nekk am na école booy delloo fi mu ne lii ñun ñu ñun ñi nga xam dañuy corriger lii bu ko nit ki indee amuñu droit corriger ko parce que dañu xam ni kii dellu na si école bu wér dañu xam ni kii dellu na si école bu wér waaye ki nga xam moom dafa indi loo boo ko nattee xamuñu ban école lay dellu lu mel noonu moom ñëpp dañuy maase ni kii dañ koy xañ ay ay points loolu tam nit ñi def si inti waax bu baax a baax te xam ne loolu toujours dañ koy sóoraale si. si si jàngukaay yi ak ak ak madaaris yi liñ dul accepté daal mooy loo xam natt nañ ko ba suñu àlloo fi mu yem mais xamuñu li ban école la dellu wala waa ji def na ko waaye xañ na si ak ñàkk xam lay tegal lu mel ni moom ñaare fuñ ko fekk moom ñëpp dañuy maase ni kii dañ ko war a dindi te buñ koy xañ ay point nag mbokk yi ay ay point yu bare bare bare lay doon yoo xam day métti lool moo ngay dégg waa ji naan sama mbind mi ni mu baaxee ba pare gaa yi di ma def lii fekk na daa nekk si biir loo xam ne buñ la ko xam fi bari na ay këyit yoo xam buñ ko buñ la ko jébbaloon ne la lii soo këyit la am na si koo xam daa ñëw ne waa man sama bind ni mu baax ngeen di ma jox lii ma ma ma daal di ubbi sama portable wan ko aw këyitam mu ne lii man a man na ko waaw waxaatu dara parce que xam na ni mbind ma rafet na alluwa ji mokkal na mais am na lu fa nekk loo xam ma des na ko corriger te loolu lépp tey li Sëñ Sam jàngalee boo si dépendre da ngay dégg ni euh, ñiy atte am na fu ñu sukkandiku pour atte waaye demuwun rek ci ci bakkan wala ak ñàkk ñàkk xam ndax alxuraan ji moom mi ngi fi kenn dugg ko sikki sàkk mokk na mbind mi rafet na macha allah waaye nag nit léeg-léeg day bind ba loxoom sonn mu def loo xam ne xañ na boo corrigé du ko xam lu mel ne sinisaam wax na ko ne ne la masque fekk dafay nekk alaawu xam nga alaawu tey masalan boo jëlee lu mel ni kii min qablu ah ñun la masque ko nga yàkkam di def nii est-ce kii tege na fi war a tege kii foog gars yi dañ koy mu axasa lu benn tey bu ne la qulubuhum masalan yaa ngi dégg ah yow def nii est-ce kii yanu na ko kooku dañ ko duñ ko bàyyi mu jàll laam gi xam nga araf dafa dafa ko war a tiim nga def nii léegi yow nga ñëw teg ko nii est-ce dañ koy bàyyi mu jàll déedéet maanaam araf bi heure boo xamee ne wàcc na place am dañ koy corriger te loolu mën ngaa rafet bind mokkal mais paas bi nga am si yu bare bari bu ñu ko mu axasa ki nga dendal bu ko amul kooku fokk daf lay dafa lay jiitu moo tax suñu saam li mu wax lu mat bàyyi xel la araf bi ñu di ko teg fi ñu ko war a teg day mat day jàppale day dimbali nit ki am na si loo xamante si itam ñuy concours ñu di leen ko baaxee ngeen di ko fàttaliku lu mel ni que li ñuy tudde iltisaax ñaari araf yu laalante mbind mi lu mu sew sew ñaari araf bu laalante kooku dañ koy mu aaxasa maam dañ koy corriger nit ki amul dama sànni noonu rek yi mu dugg fële kooku moom yaa ko sànni waaye buñ duggantee wala masque gi laal ko foog gars yi dañ say tax na ah lii la il te sax la laal na ko ñu daal di rëdd li ñu tuddee intimence mooy araf gëmmu gëmm araf bu gëmmee dañ koy corriger duñ ko bàyyi mu jàll xam nga yooyu nag boo ko xoolee détails sew yooyu su fekkee xamoo ko man ngaa nekk à distance defe ne concours bi dafa yomb fekk na nag yombul li jëkk jafe rek mooy jàng alxuraan moo ko di ko bind te doo ko te ko xool waaye yooyu ay benn la si yu ma leen di jox bu ñëwaatee dolliwaat leen yeneen waaye yooyu da ngeen koy bàyyi xel bu baax a baax lu mel ni iltisaax mooy araf yu laalante dañ koy corriger araf wu gëmm dañ koy corriger ñëw nag directement ci si saam li mu doon jàngale euh, ak gars yi def ñii corriger euh, lan lañ jàpp. loolu lu mat a euh, bàyyi xel la ndax suñu saam njàngale mi mes na tey moom moom moom léeg sax am na nu muy demee mu dóor la waaye nag moom na ngeen xam ne corrigé wul moom fi mu ne sa machine ba la nekk nag machine ba la nekk di di dajale dara jaar yi naan diw moo jiitu te te ku jiitu kenn du ko xam fi mu ne gars yi li ñuy topp topp topp fi mu ne du ma xam ne yaa jiitu du ma xam ne si maam kenn laa xamut man ngaa yor kayit yi di ko topp waaye mel moom mii xanaa gars yi mu koy dëy ñoom ñoo koy xam waaye ñun xamuñu si dara fan toogee sa sa sa sa sa saal ba di joxee dara kii neexali si la ñuy xamee di wëccitu waaye ñun keroog ban toppee lan si lan si nag ngeen xam ne ñu koy def ñu ngi si sàmm de seen kemtulaay kàttan xam na na doomu aadama la kàttanam mëniwut léeg-léeg mu juum léeg-léeg mu juum waaye moom bu dee ak farlu moom ak waggar mbir mi ak xereñ si akuk tar moom maam kenn mayewul dara parce que da nga ko moomut nag ndax liggéey bi ngay liggéey maam amaana nga siy jiital këyitu jàmbur bi nga yor di ko xool doo xool kii sëñ Mamoor la doo xool kii sëñ Daara Njaay la de loolu yitteelu la yow amaana kóolute gi dox sa diggante sa borom foofu ngay dawal loolu mooy tax ñu naan diw dafa tar wala diw daa ooy fekk tar amul yàlla ngay sàmmunteel parce que amul loolu li nga moom ngay may alxuraan moomoo ko ki ko jàngee ba mokkal ko li mu indi rek loolu nga koy jox lu mel ni sëñ Saam li mu wax ci comme aliman xakima kooku gaa yi taxaw nañ si waaye ñu bàyyi ni kooku dafa am lu ñu tuddee maam arbaon ihtimalaat daf si am maanaam ñi koy corriger maanaam ñiy jàngale rasmu wax nañ ni ñaari masque bu jubee alif dafa am arba ihtimalaat am na si ñeent yoo xam ni dañ koy faral di gis si téere yi ñi taral nag ne nañ benn bi rek moo wér gis na si yëpp ñu wàcc ko waaye am na ñu leen loolu nag ëpp na ñaar ñeenti ñeenti am na ñu ne ñetti yi faasida la baaxut amul école bu ñu sukkandiku ñu ni déedéet taral ngeen benn bi moom ñëpp dëppoo nañ waaye am na si ñaar yoo xam ne ay kàngam ñoo ko saxal kenn amul droit génne ko ku ko bind loolu lañ koy valider mbokk yi ñeent yooyu. si saam andi na si benn bi si jiitu mooy lu mel ni ki bu dee aliman masalan xam nga kooku boo jëlee bii teg fii kook masque gi la nga jël tanwin gi teg ko si alif parce que nee tanwin gi moo tax alif gi ñëw xam bii bii am na ñoo xam ne saxal nañ ko parce que fi mu boo yàggee di yër téere yi alxuraan yi dem ba gis ay téere yoo xam ne bu sa xañ na bu fekkee sa gëstu xóotul da nga yaakaar lii am na parce que am na ñoo xam sukkoon lu mel ne ay iraq wala iraq am ay téere am na si ñoo xam seen sukkoon fi mu doon ne alayhim ñoom buñ koy sukkoon taariya la ñuy def maanaam fu ñu fekk ak sukkoon dañ koy bañ a maas loolu mooy mandargam sukkoon bi te fi mu noonu loolu boo yàggee ay na ñoo seen sukkoon fataha la am na ñoo xam ne alayhim boo ko doon jàngi si ñoom yaaga boo demee ak fataha nga fekk loolu nag boo yàggee yër ay téere da koy xam nga bañ a jàpp ne li nga nekk nii rek loolu moo am parce que xam-xam lu lu yaatu la te dañuy wax ne ab jàngale kat moom heure bu bàyyee jàng rek bay bon mu bàyyee jàngale ab jàngalekat heure bu bàyyee jàng bay ba mu tëj daaraam wala boog lu ko mooy ay dongaam danañ ko raw ndax xam-xam dafa dafa dafa yaatu kon bii benn la mu am si boo xam ne itam ñaareel bi si am andi ko lu mel ni nga ni nii ki xam nga andi ko ko pare muy masque gi léegi nga andi tanwin bi xaw bi am nañu am nañu am nañu saxal loolu am na si boo xam ne nii la comme nga def nii moom siw naa am na ci boo xam ne nii la nga def nii mu yanu ko nga jàll nii boo xoolee ënd naa fi ñeent ah. benn ñaar ñett ñeent dañoo wax nag ñi ni wax sayxaan yi nga xam ne mooy mooy ñan aywa ñaar ñooñu xam ne fu ne seyxaane nga xam ne ñoom lañu dañuy dellu si ñoom ci bind ak ci maas ñoom dañoo wax ni bii moom moo wér te bi te boo xoolee bii alayhil amalul maghariba umuman maam téere sow yëpp moom la ñuy ba mu des Tunis ak jasairul hadis mooy bi bi jóge Algérie bu bees bi waaye boo xool jasairul qadim sax ñoom duñ def bii kon ñaari seex yi ñoom dañoo wax ni bii rek moo wér yeneen ñett yi yëpp ñoom dañ koo dàq ñu ñun leen bii dëgër na ndax lan bii dañoo wax ni ku ñu wax siiba wayhi ak xalil ñoom ñoo ko saxal te ñoom ñaar ku leen xam ci naxwu ak liggéey bi ñu liggéey si alxuraan tam kon seen masab dëgër na kon boo léegi nag ñun ñett yi nag moom moom amut école moom foo ko fekk rek dañ koy dañ koy dañ koy radd kon ñu bàyyi xel ni yii bii moom mooy bi sëriñ ñaari sëriñ yi saxal mooy jël tanwin gi mu tege si kaw alif gi wala mu tege si araf bi nga xam ne moom moo jiitu alif gi kon nay jàpp ne kon yow miy concours ñaari jumtukaay yi boo si def ñii mu aaxasa amuñu droit ci xañ la ay point parce que li nga bind wér na te tegu na si école xam kon li ko dëgëral mooy loolu ma leen wax mooy borom xam-xam yi xam ne saxal nañ ko tey bu fekkoon ne ñi ko saxal xamuñu leen ci xam-xam wala seenum lef yaatuwul su boobaa tam dañu koy raddu comme ni ñu raddoo euh, yëpp kon lu mat a xam-xam lu mat a xam la bii ñaari sëriñ si ñoo ko saxal bii Shiba Wahi ak Xalil saxal nañ ko léegi mu des euh, li nga xamante si nii moom lañ doon waxtaane mooy est-ce que bu dee ñaari maska way intaqif googu ngeen doon jàng léegi xam nga ci alif la bu dee da ngaa taxaw ci alif lu mel ni aliman léegi tanwin gi fan lay tegee su fekkee dangaa jël benn ci ñaari madrasa yin la wax xam nga bi ni ci kaw araf bi la tege moom kooku mu amatut muskila waaye bu dee ci kaw ki ni alif bi la na ngeen bàyyi xel ne ñiy corriger moom li ñuy dëppoo toujours mooy bii bind ko ko nga def nii mu yanu ko waaye du ko laal après beneen bi ñoo def nii loolu moom ku si mën a ku si mën a sàmmoonteeg moom te respecté ko nga def ko beneen bi itam boo ko defee kenn du la ci corriger ndax wax naa la ni la alay amalul mu umuman téere sow yëpp moom la ñuy jëfee ba mu des Tunis walla téere bi jógee Algérie tey bu bees waaye jazairul qadim sax euh, dégg nga bii lay def kon nga jàpp kon bii bii dañ koy gis si téere boo boo ubbi woon kaamil tunis bi léegi danga ko si gis moom day ñëw ba jub ko daa def nii ah. kon ñaar yëpp ñun ñuy corriger dañ koy dañ koy nangu waaye téere bi nga xam ne nu sax yi nga xam ne moom yaatal mbindu alxuraan daf koy génne ci ak mujj ñu di si dëppoo te di ko topp lu ñu si rëccut lu ne boo xoolee ten tanwin gi ci kaw alif gi lañ koy lañ koy teg pour rek taw ji nit ñi ni leen xañ na ci ci show gox bi ñu nekk di si liggéey waxuma nag Sénégal waaye yeneen réew yu ñu wër xëñ na euh, moom moo ci gën a bari. am na mbokk mu ko laaj léegi tam est-ce que bu ñuy def tataabon mooy su fekkee xuruuful xalq dafa nekk seen ginnaaw moo dañoo war a tegaloo kon dafa am lu ñuy tuddee tarkiib mooy bu ñu war a tegaloo wala li ñuy tuddee tataabon nga xam dañoo war a toppante ah. tërkib mooy bu ñu waree tegaloo wala tataabon su fekkee dañoo war a toppante est-ce que bu ñu waree toppante ban mooy jiitu xam loolu tam yaakaar naa question ñoo na bi suñu sàmm tontu na si fi mu toll nii boo ubbi woon sab kaamil léegi di xool boo ubbee ñaari kaamil léegi dangay gis ni ak wuute day daal di am am na ñoo xam dañuy wax ni comme masque gi kii moo ko moom ah moom dafa war a def nii ah comme tanwin gi alif gi alif gee ko moom kon moom na tàmbalee fii jëm fii. xam nga loolu xel nangu na ko parce que kii kii yoo ko moom kon na tàmbalee fi yem fii kii masque gi yoo ko tax a kon na tàmbalee si digg bi jam fii waaye si kaamil yu wér yi da ngay xool ne day leen gis ñoo xam dañ naan nii koy gis kon est-ce que day maam tataabon bi nan lay demee su boobaa est-ce que bii day jiitu wala est-ce que bii du jiitu boobu tam ay sew sew la yoo xam ne moom euh, ñiy corriger duñ ci taxaw lool parce que tam loolu xam nga waaye nag xam-xam la parce que tam boo ko téyee xam ko yow war ngaa mën a xam li ngay liggéey lan la parce que fi nga koy xamee rek mooy boo ko doon layal bu neel pourquoi nga def lii rek nga ni kii kii ko tax a jóg comme moo ko tax a jóg na ko na ko na na ko jige loolu la rek waaye nag bu fekkee dem nga fenn bind ko fa ne itam lu tax ñu ni la euh, li nga def wérul dañ koy dañ koy dañ koy radd ñu ni la bu fekkee dafa jub xuruuf xalaq dañuy tegaloo loolu la ñu wax waaye nag dañ see seetee benn baat boo xam yaakaar naa ñu bari seen xam nañu muy aadalule boo ubbee sab kaamil nga xool ko xam nga xam saa ngi nii comme ni ngay wax mahzuran inzur xam nga xamsa googu tax na ñaar alif dañuy tegaloo waaye fi mu ne tey boo ubbee sa kaamil ñoom ñaar dañuy duñ tolloo parce que lu tax mooy da ngaa idgham da jël léegi dañ léegi yow da ngaa i'tibaar dagge rek daal di koy maase nii waaye xoolatoo alif nga moo tax ñuy jàng aadal luulee ci warsh ak qaaluun loolu tam benn baat la boo xam ni bu mat a bàyyi xel la xañ na boo sab kaamil te kaamil bi wér amaana mu dana dana dana sàmmonte moom rek lañ ci génnee waaye faneen fu mu jubee xuruuful xalq moom dañuy euh, dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy tegaloo mu am lu mu waxoon itam loo xam mat naa bàyyi parce que dañuy wax ne toujours koo xam day jàngale war nay bàyyi xel kiy jàngale li mu wax comme noppi nañ fii te mooy maraaxil yi nga xam ne dabt jaar na fi ba ni mu agsee si ñun wax na abul asad addu ali nga xam ne moom benn tomb la daa teg ñu daa ko tuddee nuqtatul i'rab parce que moom boo xoolee moom ba jàng baat bi te bañ koy yàq la doon lijjanti moo tax ñu daa ko tuddee ay tomba moom nuqtatul i'rab lañ ko daa tuddee ndax moom mujjug baat bi lay tomb pour boo ko gisee nga xam ne lii fataxa la wala damm la wala kasra la lu mel ni ki alam tara alam rek moom tomb lay def fii def fii tomb nga xam lii daal jub daa daa boo wax ne dañ koy maas masque ket fii dañu koy maas masque ket ñu ñu koy tuddee nuqtatul i'rab bi mu jógee ci marxala boobu ñëw na ci yaxya bi mu doon wax dégg ak ansima ibnu yaamur ñoom ñoom ñoom seeni tomb te dañuy wax ni bii ba muy walaabul dañ see sart mu xong amuñoon droit di ko ñuulal maanaam force dañ koy xongal parce que dafa bokkul si alxuraan ñu ñaareel ñi ñoom bi ñu ñëwee ñoom seeni tomb dañ koy tuddee nuqtatul i'jam mooy deuxième étape bi parce que lu tax dañoo gis ni couleur dafa xaw a jafe nekkul ñëpp a koy jekku di ko def ñu ñëw indi seen ay façon nga xam ne ñoom baat bi duñ bàyyi fenn fu tomb war a am ñu ni tomb yooyu ci baat bi la bokk lu mel ni ñoom waqtuluhum kon waqtuluhum da nga xam ne ñaari tomb yi si baat bi la bokk moo tax ñoom bu ñu ko daa bind dañu koy ñuulal parce que moom min jinsil kalima kenn mënu ko see génne biñ jàllaatee si état boobu nag si lan doog a ñëw ci li ñu tuddee nuqtatul mutawal mooy yi nga xam ni xaj na xalil alfarahid yi moo ko nit yooyu moom moo walaabul ci masque yi ñuy jàng ak ni ko ay dongaam defaraate ba tey ji ñu mën see jot kon loolu kiy jàngale day xam ne alxuraan jaar na ci ñetti état bi yëpp mu tawal waaw mooy xamoo dafa xaw a nuroo ak masque ci ni ñu koy defee nii indi andi waaw gi comme gi sëñ Samb doon wax wala fataa gi wala walla wala wala kasra gi te wax na ne bi mu ko bindee itam ci way la ko njëkkee essayé ñu jàng ko mu jub ñu doo koo jël def ko ci alxuraanul karim kon ngeen xam ni eh, alxuraan Euh, ñi fi jiit sonn nañ si euh, teg nañ si ay ay tomb yu bare bari tomb yooyu ñu waxoon nag xam naa foofu la ñuy jeexale ndax dafa nekk ay tomb yu ama am solo pour que ñu xam ko ndax bari na ñuy bind ñoo xam ni euh, boo leen ci corriger sax barki démb sax waxtaan naa seg benn waaye mu ma li nga wax amut ma li nga wax amut laa daa wax waaye ginnaaw bi ma xoolee laa xam ne nag li am na waaye loolu moom addina mooy demee noonu parce que xam nga nit moom boo xasee jàng alxuraan ba mokkal ba beq bind fukki kaamil boo nekk dama lay formé te mu duma la dana la waaye kii ba ma jàngee ba léegi moo gama loolu dafa mën a nekk fekk na loolu demewul noonu mag ñi dañoo gëstu rasmu ak dabtu ba mën ko xam ko parce que ñoom ñëpp ci la ñuy sukkandiku waaye ñun boo xoolee ni ñuy bind xëy na day nekk si daal rek di bind muy rafet ñuy topp amaana siñ daara bi xatut xatut mën a taxaw si baat li jënti ko ba mu leer bàyyi la nga dem ak yitte yu yi su ko defee doo ngay loolu ba mu jeex dafay jàpp ne lii rek moom moo walaabul fekk na lu si nekk am na fu mu war a tege tomb yooyu dafa am ay tomb yu am am solo yoo xam yu mat a xam ne duñ bàyyi duñ duñ duñ duñ duñ bokk gis nga li ñu tuddee nuqtatul i'jam mooy yooyu moom foo ko fekk yeneen tomb yi ñoo koy ëpp buñ ko ëpp tuuti itam mag ñi daan nañ ko def ay pexe xam na soit ñu di ko sewal wala ñu di ko xongal yooyu mën nga see jël lu mel ni ki li ñuy tuddee lu mel ne nuqtatul libtida xam nga loolu ñun bi ñu bindi kaamil mooy tomb gi nekk ci suqi moom lañ tuddee nuqtatul ibtida parce que mën nga see tàmbulee lu mel ni ki comme inna allah xam nga gi tey bu fekkee yaa ngi bindi kaamil gis nga boo koy tomb tomb bu verte ñaari ñi ko xam dëgg dañ koy day xaw am volume tuuti bii mooy war a ëpp bi nga fekk li ñuy tuddee nuqdatul ishmaam moom itam mooy gën a rëy tomb bi ñuy tomb ci booy bind ah jàngal naa la ko rek lu mel ni ki lu mel ni ki su at soo ko xamee dëgg dangay gis ni ñoom dañ koy rëyal wala soit ñu sewal ko def si eh, ay couleur wala lu mel ni ki nuqtatul ixtilaas wax naa la si misaal léegi lu mel ni kii waaye doo in tauddu ah. wala ay ni'imma ya'izukum xeetu mel noonu ay yaxasimuun yooyu bari na gis nga mooy bii waaye boo dee seetlu bari na ñoo xam bu ñu dañu koy sewar rek ñu xongal ko pour war na ne la wuute nag bi fi nekk mu desaat beneen bu ñuy tuddee nuqtatul imaala ah. mel ni kii kubra léegi nag su fekkee ne yow yi ngay commencé da ko doon rëyal bu bii ñëwee day rëy waaye tey bu fekkee da ngaa def nii lu mel ni kubra ah non dama juum bu fekkee ne comme bii masala waaw def nga nii ah waaw bi yam na léegi beneen bii ñëwaat nag dana am benn mandarga bu mu yor boo xam dañuy gis moom mooy gën a rëy bii bu ko defee nag dañoo wax ni bii mooy première yi mooy deuxième ñu ni déedéet yii ñoom ñoo bokk benn daraja parce que Abul Asad Ad-Du'ali moo ko fi andi woon te dafa des dafa des ba léegi ci dabtu génne wuñ ko moo tax kon ñun ñoom ñoo bokk même daraja su ko defee nag bi nekk si seen suuf nag mooy li tuddee nuqtatul i'jaam te mooy yi nga xam ne moom la ñuy tombé baat yi comme ay waqtuloo ak ay kafaru billay naa nga mag naam xam nga itam day mat a bàyyi xel ci yow muy liggéey nga di si def tarkis di si taxaw bu baax a baax te xam ne eh, ñi koy jàngale ñaare bu ñuy corriger dañ si dañ siy taxaw ñaare ñiy corriger moom ah ixtilaas ixtilaas ah. waaw maanaam boobu dañ koy kii rek dañ koy waaw même booy xool suñu kaamil yi xam nga am na dañ koy respecté léeg-léeg ngi ay kaamil yoo xam doo xool même ñun yi ni sukkandiku topp sax ñaare duñ koy ni mais pour nga am pour nga am xam-xam bi rek nga xam ni yii eh, valable na parce que yii dafa lay dimbali ñaaree ba toujours rek su fekkee yaa ngi dugg ci ab liggéey nga xam lafa nekk ci ay point ak yu ñu war a wattandiku nga nga nga nga respecté ko yi daal mbokk yi bu ngeen ko xoolee ak dolli ci li Sëriñ Sam waxoon eh, dafay doy sëkk comme si bisub tàmbali lañ nekk ah bind nañ ko pare am ah, damaa gaaw hmm. suñu sam laay roy damay joxoñ daa mel daa bëgg añu fi ne nii imaa waaw dama ne kooku fa aywa yooyu daal bu ñu ko jàppee day nekk yoo xam ne xaj na bu fekkee def nañ ko ay yooni yoon tey tey fekkee waxtaan yi dana la dimbali ci ci ci ci ci concours bi parce que moo si gën a am solo ndax yow mi xam da ngay bind aw di ko jëbale normalement war ngaa mën a xam ñiy corriger lan lañuy ak lan lan dul topp ñu gën leen cee yee bu baax a baax lépp loo xam ne ñaari école lañ koo saxal ñaari dañuy am ak dëppoo ci bàyyi ko kenn du ko laal waaye nag luñ ci gis ba gis ni nag lii moom dëppoo wut ak benn école dañ koy corriger te point yi ñu si dindi day nekk ay points yu xaw a yu xaw a diis ñaari mën ngaa rafet mbind mokkal am ku ko respecté raw la te fekk na yow daanaka yow man nga ne yaa ko faw ko ci lépp yaa ko gën a mokkal gën ko rafet bind léegi nag moom mu xam benn étape boobu su amee fee ay points respecté waat donc man naam bu yaakaaree bu konk bi ñëwee mën naa am mu am ci euh, ay point yoo xam yow yow doo yoo xam yow doo ko. waaw mooy masque yi mooy yi nga xam ne moom la xalil indi daanaka moo si mujj yooyu lañ topp nag ba euh, ba tey jii xam naa loolu foofu la ñuy yem ba bàyyi sëñ Saaliw mu ñëw ci rasmu ndax rasmu moom comme dafa am solo daanaka moom mooy ndey ji mu dikk ak ñu gën see taxaw parce que bi muy jàngale dem day nekk téere bu am solo boo xam ne dañuy wax ni sëñ daara bu ne. war na ko jéem a jàng man ko jàngal ko ay dongam parce que moo gën ñuy bind rek di dem te xamuñu ba xam fi li ñuy bind est-ce que tegu na ci école wala teguwul ci école ndax xam nga Sénégal bañ dalee bind yàgg na ba tey jii mënuñoo amub kaamil loolu warees naa mën a lijjanti xam faaye boobu lan la loolu nag daanaka moo waral ah laa laa taaddu bëgg wax de ah? laa taaddu fi sabti bi ma koy bind sama xel maa ngi ci dem laa taaddu fi sabti ta laa yuhibbu llaahu al-jahra boobu laa bëggoon wax de bind naa ko ba pare bind naa ko ba pare sama sama sama sama damir di wax ak man xam nga gars yi moom duñ bàyyi dara <laughs> laa taaddu fi sabti laa bëggoon a wax ah aywa. yooyu foofu fekk cosaanam maanaam masque la woon. Ah. bu fekkee am na ñoo xam am na lu nuy laaj si wàllu ñiy corriger lu tolloog ñaari question tam bañ a xóot rek ñaari question tam bañ a metti lool rek wala benn bu fekk ñetti maraaxil yi nga xam ne bind jaar na ci waaw waaw dégguma ah non ñoom Abul Hasan Adduwali moom benn bi rek la créé mooy bi jiitu ah xaw bi mu fi jógee nag la ñeneen ñi ñëw ñoom itam yokk comprendre nga bi fi ñoo ñu jógee itam xalil ñëw yokk ñoom ay étape par ay étape la ah. boobu mooy Yaxya ak Aasim moo ñu ñëw ginnaaw Abul Hasan Adduwali mooy xalil alfarahili waaw mooy masque yi ngay gis daal voilà. tomb bi tomb bi maas ak tomb bu xonq la doon doon benn tomb mooy wane ne lii ma ci kaw masque yam bu dee ci suuf ñu tomb ci suuf bu dee ñaari masque lonk ñu tomb ñaari masque bi masque parce que dafa bokkul dafa bokkul ci alxuraan daal moo taxoon ñoom da doon xongal pour boo gisee xam ne ni bokkul si alxuraan xam nga suñ misaal na la ko léegi lu mel ni moom comme lu mel ni yas juddu ah xam nga yas juddu bu defee nii si ñoom ni ñuy jàngale ñoom da xam ni kii dàmm la maam maam signe boobu la lay jox daal su fekkoon ni su fekkoon ni lu mel ni si ju dan la mu def nii nga xam ni fataa la lay ah. su fekkoon ni pour le temps def ko nii. fii laa koy maas waaw boo ko doon maas fii laa koy maas waaye xam nga waa da ko bëgg a fii fii boo ko maasee gars yi dañ la dañ koy lijjanti. ah ah bii bii tomb la daa doon moom la si jàmm wax waaye boobu ma parce que ñoom sukkoon aarida lañ ko daa jàppe non bu dee yàggee fata bii moom moo daaw man bii moom lañ daaw parce que ñoom sukkoon sukkoon rek lañ koy jàppe parce que ñoom ñaa daaw ñoom bu ñuy maas bu ñuy lim maas sax duñu ko si boole ah parce que ñoom fatxa la ñuy wax damm kasra saay saay laaj daa ngi bëgg a bëri tas bi lu mel ne tas bi tam tomb ci ci ci waa bu dee si ñun wala waaw bu dee si bu dee ñun de ba ñuy bex moom yooyu moom ba ñuy bu fekkee ba ñuy beqee ñun ñun laa war ñun lu mel ni ki aalamina ñoom dan naan la bu fekkee tomb yàlla dañuy mel ni dañ koy xaw a taxawal su fekkee tomb taala dañ koy def nii mu nekk mu dawar ron daan daan daan daan nañ ñu si gàggante xuma nag yéen dañ leen si daa gàggante waaye déedéet waaye bu dee yaa daal day xaw mel day taxaw bu dee ta bu nekk si kaw wala benn baa moom dafay dafay dafay dafay dafay ron ah ah kañ ah, ah dañ koy corriger non non loolu loolu bokk si damaa jum <laughs> na boobu yow laa bëgg a rek parce yii moom du ay kii yi moom xam yii moom du ay parce nit ñi bokkuñu nu ñu koy jàngee parce que dañ la koy ordonné di la si yee rek mais l'essentiel yi rek ñun maam yëpp mën naa nekk parce que boo xoolee ci al mushaful qadim yu yàgg ya maanaam ñun ni ñuy tombe noonu la dañ daa dañ daa rëyal nii ba mu rëy tomb daanañ ko def waaye nag bi jamono évolué li gën a bari ñoom ayin la ñuy def lu mel ni tey lu mel ni tey lu mel ni tey amenu ah. dañuy wax na ñoom bu ñu ko doon nattale day mel ni boo defee nii mu jub ah. te ñoom ñaar ñoo bokk maxaraj xaw a nuroo ci wàllu sidda ak ak moo tax xamuñu nu ñu koy bind ñu jël ko teg hamza si wet gi bii moom moo gën a tasaaroo nag si àddina bi bii itam amoon na bu njëkk yaakaar naa ba léegi itam des na senegal ñu bàyyi loon xel lu mel ni itam kenn du si moo xasa kenn parce que ñaar yëpp rot na si kaamil mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di leen ma masawu coono yi ak jot gu ñàkk gi di leen tatagal bu baax di sant bu baax sama gaay yi nga xam ne ñoo njëkkoon ci tableau bi muy Serigne Sam euh, njàngale fi njàngale mu am solo moo xam ne euh, bu ñuy wax nag nun dañuy jéem a dañuy jéem a wax ci waxi wolof bu ko defee xam naa dina ci am sax yu yu yu jotul waaye waxi wolof ji ñun moom lañ gën a euh, lañ gën a bëgg a wax ko defee moom moo doon jàngale lu jëm ci tomb ak maska man maay jàngale lu jëm ci mbind aku mbindiin waaye xam naa comme temps bi jeex na tey damay présenté wu nii waaye bu subaa jàmm insha allahu taala man maay jël première heure boo ko defee ñu dugg ci njàng moomu ñu sant bu baax sañ Mbàkke Suroon moom nag loolu mu doon wax lu mat a bàyyi xel la ndax ku ku ku ku ku ku bàyyi xel ci li muy def la topp bi it Euh, dafa xaw a sévère ndax comme ñun ñëpp bokk mokkal alquran te bokk nuñ ko mokkalee li li ëppoon ci luñ doon def maanaam luñ luñ ñu wanoon rek la ñun ñi mokkal alquran ñëpp dañ doon beqi di bind kaamil ñu di ñu toppal naa ñu nii la nii la mais kenn ci nun amul woon téere bu ñu mën a tegtal ne nii nag dëgg dëgg dëgg mooy dalilu xam-xam bi comme comme mag ñaa addinaa ngi dox nag ba mel na ni ñi ngi jot ci dalilu xam-xam bi ñu bëgg koo waxtaane ak yéen ci lay yërante biir bu ko defee bu subaak jàmm insha allahu taala ñi ngi tàmbalee ci jawharul munazzam kilifa yi it dañoo wax ne danañ ci rax xeeti boole ndax dafa bokk ci alquran bokk ci li wowal mbind bokk ci li nga xam ne it bu bu jaxasoo amee moo la ci mën a laddinte ladd la ndax lu mel ni bu ñuy wax ne nihimata goo xam ne day banku ak nihimata goo xam ne day talli ñaar yooyu am na soo xamee yi banku yëpp fañ ne xam yi talli yëpp fiñ ne nihimata goo ci yëg si da nga xam foo googa nihimata toll maanaam euh, lala daane loolu moo tax ñu indi ñu di ci indaale boole yi waaye comme waxtu yi jot na euh, te sëriñ bi wax ne dañuy présenté wu rek comme sëñ Saam li matoon a wax lu ci bari ci dëpp ci ci wa ci ci tomb ak masque wax na ko sëñ euh, euh, euh, sëriñ Mbàkke Suran lu ci bari leeral na ko ñun bu subaa bu ñu duggee noonu sëñ Mbàkke defoon ci sëñ ci ci sëñ sëñ Saam dana ko defaat ak yéen ci ñun bind yu ñuy joxe waaye bind yi nag li ci ëpp solo mooy sëriñ bi daa wax ne dañ koy mokkal dañ koy tari kon mel na ni bayit yooyu sëriñ saam joxe woon suba sunu xëysee bala ñoo def dara dañoo tari bayit yi awantu ba noppi du dëgg ñu door a dugg nag ci ñu buñ ko taree ba noppi nag ñu door a dugg ci bunt yi nga xam ne ci lañuy jàng ci war ci ci ci ci rasmu buñ noppee it danañ ci rax lu lu temps bi mën a joxe ci ay boole ñaar wala ñett loola it dañ koy bind dañ koy mokkal dañ koy tari parce que kuy toppal gone ba yëg si ci baat boo xam ne war na koo daan te fekk mokkuloo ko ba noppi nga am boole yi boo ko bëggee jëli ca téere ba ñëw toogaat wax ko xale bi kooku moom du sotti kon mokkal gi moom mooy mooy mooy mooy farata ji te li ci def li ci toppaatin mooy boolee alxuraan mag ñi dañ ko wutaloon ay xaraf yoo xam ne dañ koy tudd ci wolof saar yi ñu tudd ko ci wolof la maska yi ñu tudd ko ci wolof lu dëgg euh, euh, alif yi ñu tudd ko ci wolof parce que sëñ saa maa ngi gis mu naan ay alif nii alif naa dafa am ñeenti xeeti alif defe naa walla juróom xeeti alif yi mooy liif ak lomb liif ak busaale liif ak sukkéem liif gu rëy liif ak naar liif gu ñuul liif ak laam ay liif liif ak laam yanara yooyu foog nga xam ko Hmm? maanaam xeeti liif yi aliif xam nga dafa am liif goo xam ne liif ak lomb lay doon maanaam tey boo doon bind tey waf alool xayra da def liif ak lomb waaw door def waa da boo defee mooy lomb gaa ngi nii mu ngi nii luy fag sukkeen gaa ngi nii sukkeen maanaam nag wolof la ndax mag ñi da ngay gis ko ci màggat day yor aw yat di def nii mu taxaw yat bi mooy taxaw ci kanamam gii mooy lomb boo dégg ñu ne wa bañ lomb juróom wa bañ lomb was fihim lan xaam was nan njenge waf dan mareem wat an musamil war datan bayaan kooku kenn du leen lomb su dul loolu rek waaw goo bindati arafa ca topp waaw wa bañ lomb waaw yi nga xam ne dañuy bañ ku leen lomb xam nga waasee kullu sayin dafa rafet te yow dafa yomb was fihim lan xam was fihim ja ca lan xam it lomb ko dafa yomb was nan ja ca njenge lomb ko dafa lomb ko dafa yomb was dan ja ca mareem lomb ko dafa yomb war datan ja ca bayaan lomb ko dafa yomb wat an ja ca musammi nit lomb ko dafa yomb xayit yooyu nag buñ ko waxee ba noppi xam nga lii fi ñëw na ñu jéem ci xeeti wañ yi bu ñuy jax ak yéen boole dañuy waaw waaw kon kon wàcce nañ ma waaw li wax naa lii fag lomb lii fag bu waaw bu maanaam booy bind bismillahi alif laam bismi laahi googu liif gi ci topp liif gi ci topp gi sukkoon la sukkeen sukkeen waaw sukk wa waaw wax naa liif ak sukkeen wax naa liif ak lomb wax naa liif ak busaale liif gu rëy waaw ak liif ak sukkeen hmm. Hmm. busaale maanaam mooy euh, lu mel ni aw maamala ka tey maanuhum lu mel new maa malaka tay maanuhum liif googu nga xam ne du rëy waaw liif ak bë mooy waaw waaw doo jaraan doo maw ni te ku la am sa daanu lu mel ni eh, walay na atay tal lasina otal kita ak fayin atay na lasina ak eh, bala atay naahum mëngoog mëngoog yooyu mooy bësaale nga xam ne duñ ko jàng mëngoog déedéet li sis taw naar eh, bu saale la waaw kon sukkeet mooy mooy. lu sukk moo gën a ci kanam rek. waaw luñ sukk rek. kon mel na ni daf yi day diire basaale basaa waaw waaw xam nga ñun busaale lañ ñu daan wax waaye busaale du wolof daanaka arab la comme ñun ñoo kii nag basaale lañ koy wax wa <laughs> kon kon xam naa ba waaw waaw